ngay wéy des di xam ngeen ci diggante 2STV yi ak TFM dafa mel ni pënd ba wureegul émission bi di célébrité ak religion yaa awa jële ko ca 2STV yi yóbbu ko TFM 2STV yi nag mujj nañoo porte plainte fële ca section de recherche bi nekk ca Faidherbe gendarmerie nag commencé nañoo déglu ñi nga xam ne ñooy les concernés tey jii nag ñu dalaloon yaa awa jéey déglu ko ci diir ñeenti waxtu bi 10 heures jotee lañ ko tàmbalee di déglu ba mu fa jóge ay côté 14 heures l'enquête bi nag jeexagul ndax dinañ déglu ñeneen ñi nga xam ne ñooy tourner autour de l'émission célébrité ak religion ñu fas yéene wee l'enquête bi rek altine bii di ñëw dinañ leen ko toppal ba mën a xam ni wànnante di mujjee ki gëtëm ci diggante 2STV ak TFM